waa man dund gi may dundu nak jarna ma taxaw xolat ko parce que setuma ku dul lay gisatuma bàyyi mu solon dalam def tanki kilifa tak ki di kura indi ko ci bir keur bi kura di ma sayal top ndigalu kilifa nangul ma bëgg ma toppatoo ma xiifu ma maru ma rappelé wu ma ku def ci man loo xam ne su ma génnee ku ma xool bëgg ma ma jël sama bopp nag fas yéene ko wanteer kii di ngóore xam li ma bëgg te xamul li ma bëgg ma sama yaay am déception man ma am déception dama fas yéene woon lan takku ko indi ci bir kër gi mu bëgg ma jappé ben nit ku tekkiwul dara ba tay gi ana kura dem na ana ngone ken xamut ci limu nek man ma nek fi nak bëgg sacrifier sama aduna ci mom ah non set na ba set mais ki di ngone jaru ko ndax bañu dara fu mu dem ci ay moroomam si kii lu mu bëgg ma defal ko mu bëgg maa jàppee nit ku tekkiwul dara waaye seet naa ba set su ma ko bàyyee nii rek day yomb trop maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm waaw. waaw. naan nag tey moom vraiment sama teewaay wuute naa teewaay yi ma daan ñëw. Hmm. ci sama diggante ak Ngoné parce que comme na ma la ko waxee doon diggante boo xam ne bëgg naa ko hmm. non seulement sama yaay bëgg na ko te yow mii di ko yaayam tey boo sañoon mu sotti bisu tey bii hmm. maam initiative lan nag parce que yéen koy jël takk soxna dugal sama biir kër. à chaque fois ma diké bo mo waxé rek ma ne la dama bëggon nga muñal man ndax sama kër yi ma doon tabax paré kër gi nak dem na ba sori na parce que fi mu ma nii peinture ci dess mais ngone dama gis ci mom yeneen habitude bo xamantene vraiment mu may bëgg a jaaxal ngoone parce que ngoone mënatuma ko wo jot ko mënatuma ko sét ci gis ko bolé ci nak légui am benen copain bo xamantene lay bëggante ak mom ngone man moy bëggante mun ngoone benn parce que mon copain bobu sol na dàllat ñëw ba tok ak man waxtaan ak man te limi expliquer lepp lépp neexul a dégg parce que xamal dama ne ngone heure bu ko soxla gis ko heure bu ko woyé téléphone mu wisi ko dem na ba xamal ma ni carrément hôtel bu mu ko bëgg yobbu yobbu nako fa. hôtel la. mom mom ngone sa doom. ngone ko hôtel. mom la mi na ma expliquer lolu te ki ma ko wax. gis na né il est sérieux te du waxat bima ko waxé nak vraiment doon luma metti luma tiss ndax waxuma la bëgg gi ma bëgg ngone ngir takk ko soxna mais kër gi ni nga ma fi téye def ma ni doom ji nga mu doon lo xamne luma metti la bu yeggale ngone ngone li rek nak mo tax man ma ñëw yo fay saxal dana sét yo ngone fu mu ne dafa ko jàpp ji ma bokkal yow dama wuyé ci ndax man dama japp ni rek ak keneen ku mënta doon nit nii rek ngay mën a doxalee. ngoone rek. <laughs> li ma bëgg nag leen rek la comme sa doom la. bu ah, ñu waxtaan ak moom. mais léegi li ma wax ko la toog naa ko la. yaa ngi koy ñëw waaw waaw dama ñëw seet si maire quoi. ñëw ne yow yaa juddoo ci gëlëm naan ko ci mbaam yow yaa bon yow yaa yées yow lu salte li nga ko mën a defee ngoone. yaa lan la. yaa yow Ngoné yow mi jóge ci àll ba ñëw wax la rek nga gëm. ba eh, ma wax nga tontu ma de yow Ngoné yow yàqu nga de dëkk ah yow. oh dégg nga wax mais mais mais loolu. defal ndànk rek moom xam na man xam na yow Ngoné yow ni nga nekkee ci dëkk bi yow. nan laa nekkee si dëkk bi amoo loo nekkee si dëkk bi ah yow lay. waay nga mel ne walax jaan nii non dina woote waat incha allah. ah na ngaa feebar. feebar waaw lan la loo xam fekkee da ngaa feebar nga jóg ñu dem moo gën. dara jotuma. xam naa nag kon na nga joteeg laay moo la taxee sa gane waaye indi ma woo ko rek ndax xam naa maa yaayam te moo ko woowee moom amul benn problème moom dina ñëw. non hmm. non kon baax na. asalaamaaleykum waaye boobu ngay waaye lu la dal man jaa sa buntu kër bëggul fii woo la ba sondu jëloo ma dëgg la kay gis naa appel bi mais dama doon dem jël dama doon dem bay jël nga coupé waaye lu la dal dangaa sebet sama àdduna ndax li ma doon wax gis naa ko waaye tey guddi yi ma toll bëgg naa nga jege ba lan moo la dal gaayo ma boo feebaree ñu dem hôpital dama la yow gaawee ma man bala maa xam sa loxo yi eh booy yow lan la waaye doo ko wax lan la deux cent mille voici les mais tey nag du la xas parce que nit du nekk ci naqar nga koy yokk naqar sa ëmb bi bu la ci dara metti dinaa la ci jàppale ni ma la ci waree jàppale paa bu ma ci war a def rek dinaa ko ci def waaye man nguur ni dara mettiwu ma ci léegi lan laay wax sa yaay So you'll move on it. What. naa la fi nga fii xool bii gàtt bi ñu teg te la laa sama copain laay pour ma yaakaar naa deux mois mu sa mariage ngay mi nii sama yaay nan la ak sama papa yow doo ruus sax waaye nag lenn laa la xamal doom bis bu juddoo dina la muur nga sëyi doo fi sax fanaan ngay ñàkk jam ak sa bët soo jooy gàcce ngay jooy waaye nag di nga xam ne maa yow la c'est lay seetaan. yow sa ya, kooku kan, nah, nah, sama doomu ndey sama xarit la. nga fële ci rouge eh man mu mel man dama mer sama borom. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maaleykum. waaw. sëñ bisimilah egg si na. te de ku ne doomu fekk sax kër Diop si la laa bëggoon dem. gis na toogal. daa ngay doxee dama la soxla. waaw toogal. dafa mu kii mbir

waaye wax looy wax ni Seynabou. may ma ma ñëw bu ma ñëwee rek di nga xam li may wax. loolu de saa lay doon waxal ko. yow yaa ñàkk kersa yaag sa doom ji yow sa wax ju ji sama xarit la ñoo ànd ba ñeex gone ñoo màggandoo ñoo def lépp naka te yéen lii ngeen noroon ci man. sama yaakaar bu leen bu ngeen tas. bu leen yow ak ma doon wax lépp. xaaral dem ci bi may dem doxal kaas naan. kon yow nga doon wax sama diggante yow ndekete amul yow loo ma doon wax kii sama xarit la sama doomi ndey la sama lépp la waxal ma ñëw ci sa kër nga may bokk yi bët laay tas sama kër xam nga lu ma la yëgal yow xaw ku ma xamul waaye yow xam nga ma xam nga ma bu baax nag kaw ba suuf nag gis nga laay ngóone mu muy ëmbal lan la laalaate ëmb ëmb góor ñi dafa ëmb te nee a laay ko ëmbal. moo tax yow foo xëy bay taw. xam nga fu ma xëy bay taw est laay moo ëmbal sa doom. sama kër kenn dugg fa ko dul moom heure bu ñu yóbbu na yóbbu na ko ngóone muy guddi muy bëccëg ma am ci moom confiance bu ma sa eh may nga ma ñëw. am ci moom confiance bi ma sa libéré ko sama doom. may ma jàmm sa doom yow yow eh, nga ni li may woote moo nekku ci man. yow yow bu nekkoon ci yow boo dikk sama kër gi da ngay ànd ak dal. wala nga dikk ak sa rajax rajax nga mel ni gënu maat ci bakkan. man li ngay wax intéressé wu ma ndax sama doom excès bu doon yow di yow ndax li ma def bu doon yow la. yow amoo fulla yaa ñàkk fayda. bis bu ko yàlla mayee boppam ci jàmm ak salaam lay dina ko takk foofu rek nag laa yem ak yow. dama fekkoon ñu bëgg koo takk bu yàgg. boo ko naroon def ko. te damaa xam ne teraanga bi ma séq ak yow. yow may ma fi teraanga fi jeex. boo xooloon teraanga kon li ngeen def doo leen ko def waaye teraanga moom bëgg fi sax wax. parce que bëgg fi sax tugg. damaa bëgg nga ànd ak sa xel te nga déglu ma. gis nga làmmiñ mënta lekk morom ma te ñëw. loolu sa problème ndax laay laay laay ah. dal. dama ne daluma lii ma dal bu la daloon ñëw yow ban nga man ma am naqar la dina loolu tax fang fang nii maa ko def ba mu nekk wàcc nag sa kaw nga wàcc ko moom ne ngeen man ñëwaat ne sa kër nag gëna yegg torop ci laay boo dikkee fekk ma fi man jeeg laa boo dikkee fi may fekk yow ñàkk ma fula yow amoo fayda amoo fula loolu nga defee ali dama ne loolu nga defee dama ne man duma jeeg ni dàq doo ma dàq lu lu

mi ngi fa. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. ndey may sax. man de kuraa ñëwoon kër ga am lu ma wax. ma ne woon naa ñëw ba fii dégg ko si sa làmmiñ ndax dëgg la wala du dëgg la rek ma tax a jóg pour ma xam si lu leer. nga kura warta dégg teel rek ni damm na ndax bu ndikkee ne jëkkëram dafa ëmbal dafa war a déglu. ànd ak dal teey ba xam ndax man xam naa sama dikko doom bu baax sama doom xam naa jikkoom bu baax ndax yar naa ko fa ko waree rek taxawaal ba yëmbal doomi kenn ndax bu ndikkee ne moom mu déglu ma ñu xam lan moo xew bu ay takki bagaasam nag ah na dem na xool ba xam fan la wàññi mu jékki ba tam na dem rek maa ngi toog di ko xaar. a nag ndax yow Koura ñoo ko bokk jur. muy sa doom te yow xam nga ne sama doom yarew ma ko ñàkk kersa ak ñàkk teggin te it diggalu ma ko dàgg sant ak mag kon kura bu demee noonu ba mu lay jàll baat bu mu la war la jàll nga xam ne dimension bu mu toll woon la te nag nit nit rek la bu ko demee ba perdre contrôle yow yaa ko waroon a woo naxtaan ko toogal ko xamal ko ne ko lii dara bu jaree sax nga woo ma téléphone nga woo ma ba ñëw ñu toog naxtaan ko waxtaan ak moom te yow nee nga sa doom ëmbalul bu boobaa ñu gën la naxtaana mu ne ko toog a sa sëy ndax lii du dara donte sax sa laay laay moo ëmbal ñu ne ko lii du dara bu mu la yàqal sa sëy waaye dafoo loolu ngay jàllante ak moom baat ba koro romb la jël bagage sa nii man maa war a jàllante kuro baat wala kuro kuro moo war a jàllante ak man baat kilifaam laa te ni nga waxee nee nga da koo sëyloo boo ko sëyloo woon kuro dikk fii di ma wax leen lu ma naqari kuro moom moo waroon a déglu ma waxtaan ak moom ba mu dal. waaye damay wax ak rek mu tël bunt bi jëli bagage am ni mi ngi ñibbi ah ma toog di ko xaar rek. te yow daal noonu nga gisee. Ah, waaw. comme nag demee na noonu. te ñu ngi naan laay laaj du laaj te man mbirum xale bi lépp dara ump ma si mbirum góone bi lépp toq na sama nopp fi mu toll nii nag sama doom dinaa ko téye sama kër ba ma am ci lu leer. ma xam fi may teg sama tànk ndax kat sama doom man dama ko sëyloo rek. sëy laa ko sant bés bu ñu demee nag ba am ci lu ñu leer ay ñu waxtaanaar rek mu dellu si sëyam waaw ah, kon baax na parce que nii nga def ko sa doom defoon moom jàmm rek ci njëkk mujj kon nag maa ngi ñëw dem ah, bu waaye su ma demee danaa gën a waxtaan ak sama doom mais di nga def moom sa doom war naa def moom kon du génn kër gi waaw da di xale rek ni nga def bu war a foon da di xale ndax mbirum xale la rek waaw mais lu ma waa kër tey waa nga bëgg a dégg yoroo sa doom bu dikkati ba nga bam sama kaw man gone gu fi ñëw fi may fekk man laa toog fi faax dëju man gone gu réew man mu réew laa yemale mu doom moom xam naa ko baax xam naa lu mu ñëwee dafa lu mu ñëwee ta def da dama koo yar ay dégg pil rek dara jax ma da jax jax fil fil ak fang laa yemale naa ci a nekk. waaw maa ngi ci kaw tëdd. tey moom soxla yi ma daa soxla. ak bii du benn ndax nag yaay boole ñëw na fi na ngaa doon boole gisuma nag lu mu mën a seet. ëmb xas na ma wax na ma lu ne jéem naa ko wàcce mbañ dafante ma xam nga ne paaka kenn muy jiitu sama mbaax na naan moom sax sàpp ndax dama la doon jéem a weddi may woon boo ñëwee ma wax la ba xam yow la wala du yow. effectivement yaay. gis nga weddi googu juumoo parce que nak li olof di wax moy deug weddi juuma du ragal mais setal sa der gis nga ngóode bëgg na ko d'accord mais dama ko jappé won comme rak ji ma bokkal day ak baye parce que bu dul xam nga day ibu magam ñoy and kon man warna pa faa mën def lo xamanteni ne da nañ ma xéer loolu dëgg la kon nag yaay bu solé dal ñu dina man ma ëmbal doom na yaay na xanté mom

loo xam ne vraiment ba ma ko déggee touché na ma loolu cër mën a jox ci seeg xam nga mais tout simplement da nga ko wàcc grand li ma dégg sama rek dafa nekk en état mu jaaxal ma pour ma dama jàpp sama bis boo dem boo kaa ci sarem sa war na daw parce que ma la teg ak fële sama yaay teg kenn déglu ko dama naan kër gi sa cër sama sama cër mais kat grand bis boo nee mën na jël sama rak di ko teg nag su noonu war nga ma ci mën a xalaat waaye nag bett na ma lenn laa lay xamal lu bari woon ba mu fekkoon mere parce que ba mu fekkoon dina gën a métti mais kër gi boo fi doon kilo léegi bépp nga fi neexoon na nag ñu ànd ànd bu rafet mais damay jàpp ni ñu tàqale ko tàqale bu rafet. moo gën. accord li olof naan la nga neex na mais ba koo bàyyi mu dem ak boppam. mais gis nga kii di Sarak. j'avais pris une très bonne intention. pour jëloon décision takk ko jabar yóbbu sama biir kër. sama yaay ànd ci. ma bëggal ko saa bopp sa yaay yow ànd ci. au contraire Ngoné Sarak moo xamul fu muy taxaw. parce que Ngoné li ko téewoon ci kër gi di woon lenn. xeyna top na aduna japp na ne bu asaman ci doon wacc bu ñe barama mu taxaw doyatuma ko dem na jël sa benen morom goor ci dundu ak mom xeyna tol war na ko xamantene nak mu mu sol sama daal ñew na ma ngi boole mais kéro bama gisé luma jaaxal tok na ak sa yaay te li nga ma wax mom la ma wax te gisuma luma jaral nangu nak luma momu gis nga ngone ëmbam bi bu fekkone man la duma xaar sax kumay laaj parce que duma bañ sama dré ndax xama dom ji ëlëk lu muy doon mm. té rus na ko bañ ëlëk nga daje ki mbedd may xor xolu bay duma ko mëna wax na ko dama laa gàntaloon mm. leen rek laa lay xamal nag mm. sama gaay nga on est des amis mais bu féké da nga japp ke ni nak tay man may ki ëmbal sa rek tu te trompe du man te du de sa doon man aussi kan nag mëno leen ma ma xoxatalaa ba tax ma tax na leen man la su mel bi diké nga ko lay ñëwoon na fi comme damay jox jamm ngeen di dox ay nak la ko xam boo dee doom

Quase música. Terminou de ser troca? Uhum. Você lá viu? Viu. Alhamdulillah. tey sama nyofi fii daa Ma jam la. parce que dag maa bett xaar moo la woon foofu yow ya, ba nga xamee ne dangay génn ak ngoone di jox sa pour ko jar ngay ak astaghfirullah. amul def. lu dul di ko ëmbal. tey nag maa bett Lamine franchement bett ma ma trop et que yow da nga xamul woon ne la mm, Ngoné dafa nekk ci projet de mariage amoo lenn looy def lu dul jëf sa jëf yu ñaaw ji yow doo nit sax yow jaroo sax xam. Eva dégg naa li nga wax bu baax a baax a baax mais. par respect man am lo xamni ciom ni diko def budul sama responsabilité bima am man am lu ma sama diggante ak sama borom certes c'est vrai dama don genn ak sa copine té sax li nga wax ni lu buma bet la man musuma xamni sax ko ngone dafa nekkon ci projet de mariage li su amé dina ma jaxal lolou mais Eva man jigéen moo ma jur am na loo xam ni jomb naa di ko def jigéen c'est vrai que ngoone on a bourlingué partout génn nañu def na lu ne mais yàlla moo may seede ngoone mosuma xam nu mu mel te loolu nekkoon sama objectif si moom ndax ngoone jabar laa ko bëggoon kon soo ñëwee wax ma li man dina ma bett trop. kon yow Lamine nga de ëmbaloo ngoone jamais. waa Ngoné kan moo ko war a ëmbal. mais loolu moo jaaxal ñëpp. mais man lii mi may bëgg a jaaxal parce que wax jii nga ma wax nii laay wax jii la ma wax. mais yow dem nga ci laay mu ne du moom ma du man mais vraiment kon man mais Ngoné kan moo ko war a ëmbal. soo bëggee ya, doom jooy fore dama sa yaay utali la ko jox la ko dama sa morom dama sa màppandoo yow nga def li nga def ci sama biir kër gi gàccal ma ci mbedd bi tas sama kër tas sama yaakaar ma ñoo toog naan ma yaay du dara waxal ngay fekk mu def jox laa la cër nag comme sama yaay ma bàyyi ci kër gi te àdduna lu neex aussi ba nga toog jox ma di la tontu waaye gis nga ba ba ñuy sàngoo suuf au contraire yéen a war a taxaw baalu ma. ma baal la ak ngay wax yow yaa ma war a baal wala maa la war a baal. gis nga kii li ngoone sa doom intention bi ma amoon ci moom du lenn lu takk ko jabar yóbbu sama biir kër au contraire man maa am déception ndax ngoone tas na sama ménage. jaxase ma ak samay mbokk yak sama ci bu magam Aku zalan, uti benen wayam ci mbedd ma ànd yéen yéen a ma war mais du man ma len di balu menen way gis nga ëmb ngone bi ngay wax len musa ka Kawaane ba tax ma taxaw net ke ni man ma jur dom gi nga suma ko juro jaru ma ci fenn damay nangu sama dompas, parce que kene xamul dom jëlu muy doon ni te gis ma luma jaral bañ sama dret mais gis nga lu ma moom ma loon leen wax ba ma nangu ko jox naa la cër ba fa cër yem nag soo jógee nag ak sa doom mu wax la kan mo jóg dama ne bul dem taxaw dem mënoon ngaa toog déglu ma yaa yee jóg dem sëye woon dooñu yar dem na ci lay mu xamal ne ma ëmbalu la ma dem ci Lamine la même chose légui na xamona la bëgg nga wax ni ku la ëmbal moo gën nga toog fii di jooy jooy yi moom wax ñu ku la ëmba rek mooy solution bi fi mu toll nii. Ngoné doo xale bu tuuti damaa bëgg góob bi sa gémmiñ yi wax ak ñun wax ñu ku ñu ku la ëmbal balaa sëmb bi di gën a di gën a yàgg ah ñu lijjanti ko ah. li yëpp man jamono yoo xam pour man asamaan si doon daal su ma joxoñee mu taxaw ay sa ana jas neeri ganilaay ana cheveux naturel te góor gu ma gis dafa ne mun naa jaar sa kaw jàll xoolal résultat yi ma jural ngoone s'il te Dis-nous, qui t'a enceinte, s'il te plaît Dis la vérité. Aïcha, ça va jooju de ma mayoon ñu naan ko David un David il ma def góone David David moi, la suis un waxuma la woon nga jox ko sa loolu laa la waxoon ngóone David bii dina xam ni bu ma jàkkaarloog moom dina xam ni dina dajeeg beneen Aïcha bu dul Aïcha bi mu daan dajeeg. Aïcha man ngóone ndeke dama doon caaxaan ba far corxaan ba jaaxaan waaye ni ma jaaxaanee. comme que yéen a ko mayante seen biir jéem ko

ndax bi nekk na lu ma metti te ngoone lépp lu ko dal génnuma si bu ma si génnee sama mukk te naqar bi mu nekkee nii ak li ko dal maa moom naa ci ànd ak moom ba ba mu jeex eh li ngay wax di loo mën a dégg xam laa bëgg xam nga wax ma ko ëmbal waaw. man kat dama ko wut ba sonn jotuma ko. Hmm. te démb samedi bi gisuma ko. may naa ñëw xoolal ma ko daal. waaw ah, laay dafa bon su ñëwee. Hmm. nga ne ko ngoone ñëwoon na fi. comme nga gisuma ko démb tey moom na fexe vingt une heure naa ko gis. Hmm. dégg nga ok merci eh, eh, eh, ah. eh xam nga lu ma lay xam jallu ngay présenter wu yow ndax ñepp la xam pitti sax sa tour lañuy euh, sabé xalé bu ndaw buy nàmp sax boo koonee ko ana ngone mëna la ma nga nee buraac bi nga doon dama bëgg nga romb ma nuyu. jaga bi de mënu sa jëkkër te mënu si dara. da nga mënul la jël. nga xamal ma bëgg. nga defaral ma xaar ma ñew ñëw. defaral ma kër yi taxawal rek xaar ma ma ñëw. nga xale ma dafa ne maa dal sa kaw. ma li wu ma la yaa sa jëkkër la yaa soxla sax xaar ma fekk sama kër. doo mais doo xam wax ju bari daf may feebar moom. bi nga sama bopp dama kaa fiñ mel ni wasin bu bees gis nga cent mille yi ma diggoon pour mën cee jënd seba laa bëgg balaa nga fi jógee tey nga létt ma mbaa nga firi loolu laa bëgg sa teg quarante ans nga yàgg. dinaa la létt wala ma firi la mais gis nga yow musuma yaakaar ne jigéen intérêt ngay doon mais dama la daan dig di la ko jox. mais cette fois-ci su ma la ko joxul war nga mën a dawal compréhension parce que umpale wu ne bientôt tabaski baa ngi ñëw dama yor jabar yor doom am yeneen charge yu ma war ci ñoom bu fekkee moo tax ngay doxalee nii daga ah, wàcc nga sa yoon. déglu ma li nga sa soxna sa ceeb ak say diinu say ginaar say nen man lijjantiwuma loolu xam laa kippe sama bopp.